am dañuy madame Diallo waaw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 moom la fi yàlla teg eh, mu di ko sant ci ak accueil ak délégation bi mu àndal eh, ñuy gërëm sëñ Issa Sall mi maa ngi koy wax sànq ak yaru yaru gën ci moom islam li mu gën a bëgg ci nit moo yaru eh, ba tax na bi ñëwee ci réew mi lañ dëkk gis nañ lool ci moom yàgg nañ koo xam ñu ànd ak suñu leader Cheikh Abdou Bara Dolly muy ab xaritam wax dëgg yàlla bi ñëwee taxawaay bi rafet na ñuy ñaan yàlla defal ko yéene bi mu am ci réew mi yàlla na ko matal ak ànd kook ñii mu nga xam ne ay chef de parti lañ ay naataango ñuy président Diouf ak suñu suñu xarit yi ñun ñëpp ñu ànd ak ñu ànd teew fi ñuy ñaan suñu borom defal ko ngëneel li nga xam ne ci barke maamam yàlla na ko ko yàlla defal di nuyu Cheikh Issa Sall mi nga xam ne yaru moom islam li yàlla suñ tubaab day wax naan. doomu aadama bu ko ay waajuram yarul àdduna yar ko su ko àdduna yarul bàmm bàmmeel yar ko ñu am ci moom ñu xam ci moom yar bu mat sëkk kon nag dara jomb ko ci réew mi ñu ko ñaanal yàlla fii mu ne béréb bi wax dëgg yàlla ni muy traité ñi fii ñëw comme ni mu ko waxee léegi ñëpp la yemale wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant ci loolu bu baax ay kàddu yum fi rotal yoo xam ne dégg nañ ko ñu amoon ay témoignage yu ñu doon def ci ndigalu sëñ bi ànd ak moom ñëw fi di wax wasalaamun ala man ittaba huda fanweer ah ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy euh, buntu caisse de dépôt de consignation assisté woon nag euh, li nga xamante ni moom mooy euh, dépôt bi nga xamante ni euh, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly doon na ko def di déposer caution am ñu taxaw ak mandataire am ak délégation bi nga xamante ni ñoom lañu àndal dañ leen dégg suñu micro rek ñu leeralal ñu li nga xamante ni moom moo tukkee woon ci biir sëñ bi ñu ngi lay ziar. salaamaaleykum waaw comme ni ngeen ko gisee tey jii dañu ñëwoon fii au niveau de la caisse de dépôt et de consignation pour déposer suñu caution. donc euh, ñun euh, dañu ñëw fii ci turu coalition nekkal fi askan wi donc euh, mu nekk délégation bu mag président Cheikh Abdou Bara Dolly moom moo koy mooy président bi donc mooy candidat bi moom moo ko dirigé donc ñu ñëwoon tey déposer caution bi donc caution bu trente millions yi donc moo nekk nii photocopie chèque bi ak décharge bi nga xamante ne moom la ñu waa CDC jox Euh, léegi nag euh, xam ngeen ne lii dafa nekk étape boo xamante ne dafa am solo trop si dépôt candidature yi donc mun nañ ne mooy étape bi nga xamante ne moo si jiitu donc moo taxoon tey rek ñu ñëw pour euh, wàcc def wàccaay boobu bu ko defee yeneen étape yi si des incha allah très bientôt mu jëm ci wàllum parrainage bi avancé nañ ci bu baax a baax daanaka finaliser nañ ko su ko defee ak yeneen yi muy àndal yëpp incha allah dinañ leen wax fuñ ci toll donc ñu am mbégte tak ci dalal bi ñu dalal parce que bi ñu ñëwee fekk nañ ci directeur général bi donc directeur général CDC mu defal ñu accueil bu mucc ayib euh, jël dossier yi comme ni ko yoon waxee ñu saytu ko gis ne lépp conforme na lépp jaar na yoon euh, ñu defal ñu décharge bi ci chèque bi euh, defal ñu décharge bi nga xamante ne mooy wane ne ñun en tout cas coalition nekkal fi askan wi déposé nañ suñu caution wu trente millions Eh, lan moo tax nga porté seen ngeen porté sax seen choix ci eh, eh, Cheikh Abdou Bara waaw parce que xam nga comme ni ma ko tuddee sànq Cheikh Abdou Bara Dolly dafa am parti parti boo xamante ne moom la ñu nekkal fi askan bi donc ñu porté woon ko moom pour mu nekk candidat suñu candidat mais am aussi yeneen parti politique yoo xamante ne dañu gis moom li muy liggéey gis programme bi nga xamante ne moom la tegal Sénégalais yi ñu bëgg nekk ci ginnaawam ànd ak moom pour ci ci ci ci wàccaay boobu mu jëm donc looloo tax après bi ñu waxtaanee ñun suñu biir même au niveau de la coalition ci coalition bi ñu maintenir tour boobu muy coalition nekkal fi askan wi parce que gis nañ ne tour boobu mooy jëmmal li nga xamante ne mooy taxawaalu taxawaayu Cheikh Abdou Bara Dolly parce que gis nañ ne moom il est toujours au service bi peuple askan wi moo fi tax a nekk moom la fi nekkal te seetlu ngeen ko ci fan yi nii rek déjà génnaguñ ci ci maraton budgétaire bi gis ngeen taxawaay bi mu am ci biir hémicycle bi au niveau de l'Assemblée nationale donc euh, mu nekk koo xamante ne kenn dootu ko présenter ci taxawaayam kenn dootu ko présenter sur le plan social et puis nag mu teg programme boo xamante ne programme bi ngi tudd un cinq cinq euh, certainement gis ngeen ko ci ay ndaje yoo xamante ne am na yenn pàcc yu mu ci wax euh, donc ñun ñëpp ñu ànd nag coalition yi coalition bi yëpp parti politique yi ko constitué mouvement yi ko constitué ñun ñëpp ñu ànd ci porté ko moom candidature am donc loolu moo waral choix bi nga xamante ne moom lañ porté ci Cheikh Abdou Bara Dolly est-ce que xalaat ci wàllum parrainage yi ak doublon yi nga xamante ni des fois moom mooy rakale ay candidats yu bare euh, jafe yi nga xamante ni moom moo ci am waaw ñun euh, affaire parrainage bi li nga xamante ne moom lañ ci def def nañ ci liggéey bu bu rafet en fait dañ ciy profito pour pour vraiment remercier euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gox-goxaat yi ñi ngeen ñi nga xam ne ñoo nekk ci quatorze régions yëpp bi Sénégal parce que en fait yomboon na ci ñun parce que bi ñu wàccee si terrain bi euh, comme ni mu ko waxee sànq rek liggéeyu Cheikh Abdou Bara Dolly moo fay donc bi ñu yeggee ci terrain bi rek déjà ñëpp xàmmee nañ ko ci taxawal askan wi donc ñëpp dañu adhéré euh, ci ci ci ci li nga xamante ne moom mooy programme am adhéré ci nga xamante ne moom mooy candidature am donc ce qui fait que franchement on a eu des milliers et des milliers de citoyens yoo xamante ne dañoo yàkkamti woon pour parrainer ko maintenant euh, bu loolu yëpp amee ñun dépassé nañ nombre bi bu baax a baax a baax am nañ ñi nga xamante ne jàpp nañ ne duñu du ñuy def parrainage bi ak sincérité lañ ko defal jàpp nañ ñi tamit que ñun rek la ñu parrainel parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne ci gox yu bëri yoo xamante ne xam nañ ne ñii ñun rek la ñu parrainel donc ñun côté doublon yeeg yooyu amuñu ci tiitaange donc ñi ngi nekk di liggéey ci fichier bi pour li nga xamante ne buñ ko defaree ba mu pare mu nekk li nga xamante ne lañ yaakaar ne moo gën ci fichier bi bu ko defee dinañ ko présenter incha allah te am nañ yaqin ne dinañ jàll bu soobee yàlla incha allah. <laughs>